li waral woote bi c'est simple ah suufu aéroport bi bi moo waral woote bi ñi ko woote Ngor Wakaam Yoff ñoo ko woote euh, lii ñuy def tey c'est un forum sur les fonciers de l'aéroport li ñuy réclamer suñu alal la ñuy réclamer c'est simple suñu alal suñu suuf la suñu suufu maam la ñoo ko moom si cosaan ñoo ko moom si këyit ñoo ko moom si lu leen neex voilà c'est aussi simple que ça état du Sénégal moom fi dara amu fi dara ba pare di fa def lu ko neex c'est ça le problème cosaan lañ ko moomee ñun ñoo ñun ñoo gor ñun ñoo gor garab yi ñoo dindi xeer yi ñoo tiitre ñoo moom ñoo doon bay c'est aussi simple noonu la ñu moomee suuf suuf mënuñu ko moomee neneen nu dul noonu da ngay ñëw nga gor ko nga dindi xeer yi nga bay ko ñu laaj la ne daf ko utal ko kayit ñu utal ko kayit avant l'indépendance du Sénégal avant l'indépendance du Sénégal pendant que les tubaab étaient là c'est comme ça que ça s'est passé suuf si noonu lañ ko moomee bu ngeen demee au livre foncier ngeen dem euh, toucher le 4407 pour vous les journalistes allez vous vérifier ça le 4407 vous demandez les bordereaux analytiques su ngeen demandez les bordereaux analytiques dina leen jox liste liste ñi nekkoon ñi amoon titre foofu yëpp dinañ leen ko jox avec leur numéro de titre foncier c'est aussi simple que ça ku bëgg xam ndax suuf si ñoo ko moom wala moom loo ko da ngay jël le numéro 4407 DG nga dem au niveau des impôts et domaines soo fayee pass bu nekk deux mille francs soo fayee dinañ la génnal pass bi nga xamante ne moo def tous les numéros de titres qui se trouvent sur l' aéroport de Ngor Wakam de de de de Léopold Sédar Senghor c' aussi simple euh, mais c' ça le problème le gars euh, le le le le kii là le le directeur des impôts là mais mu ngi topp télé ak rajo yi di wax lu nekk mais mu ngi wax ne dañu ko jaay mais na génn kayit bi na ko génne wax naa leen jaay dafay fekk. mu nekk si si si temps bu normal jaay boo xamante ne ñëpp xam nañ ne jaay jaay bi muy wax mënul génn kayit benn ba pare condition yi nga xamante ne ñun moom lañ joxe suuf si on l'a évoqué y avait une guerre y avait une guerre c'était pas possible de faire une vente c'est ça le problème voilà xanaa ay famille ñëpp duñ dajandoo benn place imagine par exemple waa Ngor waa Ouakam waa Yoff ñëpp dajandoo benn place ne dañuy jaay ay suuf loolu est-ce que mës ngeen ko dégg fenn musul nekk am qui avait provoqué que ñu jël ay fii def ko aéroport militaire c'est comme ça que c'est parti voilà lépp lu ñu fi wax leneen lu ñu fi wax waxuñu dëgg xam nga ay nit aw askan nekk dans le besoin pour yaatal seen dëkk vous vous avez bien entendu c'est pour l'extension de nos villages ñun géej lañu sës mënuñoo yaatoo géej fii ñu mën a yaatoo fii moo fi nekk fu naturel fu ñu mën a yaatoo aéroport bi espace bi ñu ñëpp xam ngeen ko mënuñoo yaatoo fenn et pendant ce temps au Sénégal dëkk yëpp ñu ngi def ay extension parce que dañu am ay ay espace yu ñu defee extension alors ñun ñu am espace bi pour def fi extension di ko demande en plus de cela waxuñu sax ñu jox ñu mais waxuñu ñu jox ñu lépp mais dañ ne nañu jox lu ñu defee extension suñu village pendant ce temps ce même président il il vient il donne des terres à des gens qui n'en même pas besoin malheureusement tey jii yéen ñi ñëpp xam ngeen ne bu ngeen taxawee si aéroport bi ngeen ne a donné à des gens qui ñun dañu bëgg pour dëkk léegi ñu jël ko di ko jox ay footballeurs yoo xamante ne ils ont de l'argent mais c'est quoi c'est quoi le problème dans ce pays c'est ça le problème bu nit ñi waxee léegi ngeen ne voilà dañu dañu am victoire dañu def lii dañu def la mais on s'en fout de ça waaw ñun suñu yoon neewul si loolu li ñu bëgg mooy dañu bëgg survivre on vous a dit tout suite ne leen wax na leen nombre de personnes bi au kilomètre carré à Ngor problème ngeen foog ne nit ñi dinañ toog di seetaan loolu on va se pour ça on va pas se ngeen jéggal ma nag wax ji a besoin de parler comme ça pour qu'on puisse nous parce que loolu moom foofu lañ toll quoi en fait dañu dañu sonna dañu dañu sonna gis ngeen xale yi ni ñu bare nit ñi dañu bare si dëkk bi amuñu fu ñu dëkk amuñu fu ñu fanaan et ça vraiment dinañ génn pour xeexu voilà loolu ma naataango yi wax nañ ko léegi def naa am na loo xamante ne aussi il faut que ñu ñu bàyyi si xel dañu am lu ñu dëgg man mm-hmm. appelu li maamulaay bi ça nous concerne mm-hmm. on est foncièrement ay sunuy kilifa lañ dañ fa dem démb waxtaan ak ñoom ñu am lu ñu dénk loolu lañuy ñuy déglu nii. Mhm. bu ñu jógee si loolu bu ñu jógee ci loolu lu ñuy neex la wala lu ñuy naqari la mhm. loolu la ñuy xaar. waaw loolu leer na loolu leer na te loolu li koy définir liy war na ne am nañ doole di ngeen ko gis ci kanam loolu soxlaawul wax. toog leen si déglu rek seetaan di ngeen gis ne suñu doole boobu ndax am na wala amul wala mhm.